asalaamaaleykum ñëpp. Mm-hmm. Euh, maa ngi nuyu suñu mbokku internet yi. Mm-hmm. di ñu seetaan. Mm-hmm. waaw di nuyu ñëpp. di nuyu yow mii di nuyu tamit waa SENactu TV TV kenn du yéen. mais si loo nekk nag euh, Zina si lan nga nekk actuellement nii parce que temps yi Zina Zina bu Ngaaka Blindé la woon xam nga Zina si lañ ko xamee woon hip hop bi mais actuellement Zina dafa nekk si ay yeneen business yoo xamante ne ni bul comprendre Zina lan la. laaj naa la ko. la. non parce que boo xoolee actuellement Gina tey Instagram YouTube beeg fépp foo tourné Gina Gina Gina Gina Gina sa relation ak Ngaaka Blindé kañ la commencé. ah yaa ngi may koo xamante ni tey dafa sës ci man. ok waaw maak moom duñu ay xarit ay frères jumeaux lañ. Mhm. bañ na ko day naan man maay jumelam. Mhm. maak moom ba ma ko xàmmee ak sama relation ak moom. Mhm. ça fait très longtemps. Mm-hmm. depuis 2006 laa laa xam nga xam Ngaaka Blindé da nekkoon doon jàpp si staff bi pour job bi wala nga sukk nag moom benn activité boo xamante ne mooy loolu noonu. <laughs> waaw sukk nañ job moom fu ma woo ma wuyu ko. Mm-hmm. Mm-hmm. mais comme déjà que li gars di wax si Zina ñee Zina comme day ba euh, buzz lay xale bu gën def buzz mu kidnappé la téye ko quoi de tout ça. man mii euh. <laughs> non loolu amul. Mm. yaa nga ko Blindé mosoo doon génn. non maag yaa ko blende jamais mos ñoo génn. lan la da nga ko nëbbutoon wala xale la boo xamante ne mooy loolu noonu. ngaaka ngaaka sama sama sama sama ngaaka la sama xarit la. Mhm. voilà c' est que nañ dépassé nañ ay affaire de relation. relation amoureux tout ça tu vois. Mhm. c' est un frère. c' est un frère et je le salue de passage. ok mais dañ doon dégg ne Jina euh, ak Ngaka dañ doon amoon relation dañ doon génn tout ça ah man lépp daal ñu koy dégg chaque jour am loolu moom c'est vrai te dinaa ci sawar a tontu d'ailleurs. Mhm. ñu koy xalaat dafa bëri. Mhm. d'ailleurs sama relation yu ko yàq sax. defe mhm. naa loolu noonu si la ci loo jógee. ci la jógee oui da ngay génn ngaak xam nga benn góor mënul supporter loolu tout le temps nga nekk ak benn xale bu góor collé ko. fu muy joué concert nga topp ko tout ça tu vois. oui oui. mais sama xarit la. sa xarit la <laughs> après acte concert daal maam sa sax da ko da ko bëgg daal sa musicien dama ko bëgg sama biir xool. sama rappeur lan la ma def comme lan. Ah. góor la bi ah mais Sénégal dañoo critique bi ñu ne wartoon am parce que su kay na dafa def ay yaa ma gën a xam deux ah. pièces affaire noonu daal. Euh, Sénégal peut-être dafa am lu fiy dox. Mhm. muy diine bi mhm. xam nga. kon bu ñu gisee bu ñu gisee lu mel noonu. Mhm. yoon la paa yi taxaw wax. Mhm. mais nekk loo xamante ne tey mhm. mal quoi c' est pas c' pas trop mal. su kay na xale bu jigéen bu rafet la. gaaka tamit jantal booy la. voilà seen clip bi nice j' apprécie. yooyu yow ku la jëloon tourné clip boobu nga ko tourné. ça dépend. <laughs> Euh, non mais ça dépend parce que d' man sama famille yëpp ay voilà. ay coranique lañ. Mhm. voilà man nga sema ci xaw a def nii tuuti. topp ah. affaire de jeunesse ba pare nga xool clip su kay ne bi nga apprécier clip bi. ah pare nga ko ah, la ko tourné la nga nga indi say tu sais tu sais ma wax ak yow ma ma wax la benn affaire ah. waaw ma lu may dégg. su kay na dafa su kay na star je peux je peux dire. Mhm. <laughs> <laughs> su kay na star la. Zina mhm. dafa laakatu. tu vois. Euh, su na Soukeyna laaxatawul Soukeyna ñu bëri xam nañ ko ci ay série tu vois mm-hmm. kon bu ko Ngaaka soxlaa mm-hmm. yoon la mu dem defal ko clip bi mm-hmm. kon loolu clip bi gisoo si benn kon non man gisuma ci dara parce que man j'aime trop les habits comme ça ok <laughs> léegi bu ñu jógee foofu noonu tey la euh, kan mooy Gina ban nit la Gina mooy nit ku humble rek nit ku modeste nit ku bëgg famille bëgg ay proches am aussi actuellement nii ci lan ngay yëngu instant yi nii nii. <laughs> moom je passe ah, lu tax inutile du ma ci wax. Ah. ok ba léegi maa ngi ak Zina fii chaîne active ñu ñëwaat tamit ah même question Zina dañuy gis ne da nga bëri euh, relation ak euh, star yi. yaa ngi comprendre ñoo <laughs> si parce que Zina tey suba nga dégg Zina fële ginnaaw suba nga dégg Zina fii ginnaaw suba nga dégg Zina fii yow ak euh, Diamane Express lan moo nekk seen diggante. may laaj jaamaan danga may laaj ku sës ci man encore. ok eh, yow ñëpp a sës man damay damaa am ñoo xamante ne dañoo sës ci man. Mhm. te boo ma leen tuddalee sama xol day feex. ok jaamaan Seku Bank moom dara lu dul sama xarit la sama conseiller la. Mhm. saa yu ma amee dama koy woo. Mhm. man ko jaa mu ne ma ah, man ko j'ai un lan nga ma ciy xalaatal mu ne ma lii ak lii ak lii ak lii. jaamaan toll nañ foo xamante ne tey. duma la nee sax. sama xarit la. ci mais sama confident la. Mhm. am na loo xamante ni xamal na ma ko te loo xamante ni tey nit ñi. jomb mhm. nañ ko ci man xamuñu ko ci man. ci wallaahi. ci lu mel nan nan la xamal loo xamante ni la ma xamal. jaa ma jaaxle dama koy na maa ñeme yëfu dof. waaw may jékki-jékki rek ko foo nekk affaire yooyu mhm. na maag moom mooy loolu bokkul ci sa copain yi ngay dóor affaire yooyu noonu lan la. <laughs> tey daal émission bi du yomb. warul yomb sax xam nga loolu. xam nga foo jëlee info yi mais daal émission yi du yomb. ah ok jaamaan musuma seek ak moom dara. Mhm. na leer ci Sénégalais yi c'est mon frère voilà en plus sama sama confident la. Mhm. Mhm. sa confident la musul leen seek dara. non tout ça am nga am nga am relation tamit. non non non je l'aime tellement nag mais mosuñu am relation. Ah, mais est-ce que tamit li Sénégalais di wax tamit Deva Zina day dafa bëgg artiste bu si bu maanaam yow star daal xëy na ñu ne ngay bañ a gis daal star boo gis yow <laughs> jàpp na si yow la baax daal. waaw ñun fu ñu jëm star yi samay xarit lañ. Mm-hmm. man dama yàgg a fréquenté ak ñoom nekk seen biir. Mhm. star yi samay xarit lañ. say xarit lañ est ce que ñëwul tamit yaay jaay sa bopp star yi tey nga xëy Instagram publicité benn photo bi si na benn photo boo xamante ne ni mooy loolu noonu xam nga wane sa bopp xam nga xaw a dafay xam yaa gars yi am na leen daane tam si jigéen. waaw mais Instagram dañ faa nekk di nappe rek dañuy nappe rek mais. Mhm. xëccuñu kenn suñu bopp. Mhm.